ci ay waxtu ngir ñi dal di célébrer Eid el Kabir néew lool premier ministre bi Amadou Ba dal di amaloon benn visite ci marché yu ndakaaru ngir rek dal di xool tolluwaayu xar yi ak dundin gi ñu war a amal ci tabaski bi ginnaaw bi la visite premier ministre bi moo ngi dalal xel ci li nga xam ni moo di xar ndax kat am na ci marché yi ba mu mat sëkk. amoon nañ nag njàqare tuuti ci xar yi waaye gis ngeen ak ñoom xar yi doy na fi mu nekk li ñu commerçant yi di wax mooy ñiy jaay xar. ñoo waa Ndakaaru gaaw a jënd xar pour ñu mën a dugal yeneen xar ndax li am ci Sénégal ëpp na dafa am produit excédent ci loolu bu ñu sukkandikoo ci premier ministre bi moo ngi xam xamle ni li nga xam ni moo di ay produits alimentaires manqué wul benn yoon ci marché yi.